tasaare xam-xam woo xam ne nit ñi mën nañ cee jariñu lu mu mën a doon xam-xam boo xam ne nit ñi mën nañ cee jariñu mu jëriñ leen fii seen àdduna jëriñ ci àllaaxira nga tasaare ko bokk na ci jëf yi nga xam ne yu baax la te day des te yàlla subhaanahu wa taala dina ci yool doomu aadama kon nit ki dundam gi yëpp mën na ko def jaamu yàlla ci bu yéenee ci ne kat moom kat yàlla subhaanahu wa moo ko bind may ko kattan may ko ak tal may ko xam-xam waa am daraja wala lu mu mën a doon rek mu yëg ci loolu ak cant gu am ci loola bañ ci yëg boppam mu xam ni kat lii ngëneelu yàlla la ci man wa kaana fadlullahi alayka aziman ngëneelu yàlla goog nga yëg ko ba tax na kat mënatu xam xamatoo noo koy def waaye nag naa ko fësal ak cant ci mboolem lu may def damay saraxe damay julli damay dimbali ki ci naa ko def ngir sant yàlla subhanahu wa taala kon yàlla ñu yàlla gën a def ak cantaakun yàlla ñu yàlla gën a leeral sunu xol yàlla jaay def gën a dëgg def ay dëgg-dëgg jullit ba lépp loo xam santaane ko nekk si waaye lépp loo xam tamit safaan la ñu wattandikoo wa axiru daawaan an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Allah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 رسول الله حي على الصلاه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 wa rahmatil muhda wa ala alihi wa sahbihi wa tabiina lahum bi ihsani ila yawmi albaxsi wa nusur amma baadu ixwata alislam nuhanniukum ala bidayati sana alhijriya nabawiya wa narju min allahi subhanahu an takuna sanata qal'in wa qalbin li mujriyati al umur wal awdaa fi baladina sénégal wa fi jamii duwali islamiya wa fi l aalami kulli وندعو الله سبحانه أن تكون سنة سلام وحب وتوافق وتسامح وتغاد واحترام متبادل وأن تكون موعظة واختبارا لنا على أن الحياة الدنيا ثوان وساعات ولها نهاية لا مفر منها وأن الساعة آتية لا ريب فيها ولذلك فالعبد يجب أن يتذكر دائما أن الحياة الدنيا ممر فلا تغرنكم الحياة الدنيا wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut wa anna al abda lam yuxlaq abasan afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa wa innama xuliqa al abdu li xaaya wa ma xalaqtu al jinna wal insa illa li yacbudun wa qad bayyana subhana al wasila allati yajibu an yajibu itixaasuha lil wusuli ila الهدف المنتود ففروا إلى الله إني لكم منه نصير مبين وبفضله وكرمه ورحمته أبان لنا الزاد التي يجب alladi yajibu an natasawada bihi fi hadihi rihla wa tasawadu fa inna xayra assaadi taqwa wa wadaa amaamana anna muusaja almutaharrika alhayya li an laa yakuna linnaasi hujjatun li an laa yakuna linnaasi ala llaahi hujjatun baada rusul fal ibadatu lillahi azza wa jalla wa muraqabatuhu fi kulli saxirin aw kabirin wal xuduu lahu wal iqaanu wal istislaam lil waahidi alqahaar allati alladi laa yaxsubu anhu misqaalu darratin fi l ardi wala fi sama wala itiqaadu jaasim bi an sa najidu amalana xaadiratan wajadoo maa xamiloo xaadira wala yaslimu rabbuka ahada waxfir lana walaha wastur maaibana waltuf bina wa biha fi lhawli yallahu anha tajaawasu iyaana arxamanna fama laha siwaaka wa anta lana siwaaka wa anta albarru yallaahu allahuma ahdina fi man hadayta wa tawallayna fi man tawallayta wakfina sharra ma hadayta innaka taqdi wa la yuqda alayk mbokk yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñu loxo suñu borom mi nga xam ne moo yor lépp te man lépp te sañ lépp ñu tàn ñi ñaan ko jàmm ak xéewal ci réew mi ñaanal ko bépp jullit ndokkeel leen itam ci weeru tedd yi at mu tedd bi nga xam ne moom la ñuy dugg muy atu gàddaayu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jóge makka ñëw madina ñi ñaan ci biir at moomu nag yàlla na ko yàlla def mu doon at moo xam ne lépp loo xam ne moo nekkoon di ay mbir yoo xam ne dañoo jaaxaloon ak ay jafe-jafe yàlla na ko suñ borom buddi ba mu set wecc ci biir at mi te buddil nu ko ci senegal buddi ko itam ci mboolem jul réewi jullit yëpp buddi ko itam ci mboolem mbonn bépp ñu ñaan yàlla at mi yàlla na ko suñ borom def muy atum jàmm di atum bëggante di atum atum dëpp bokk ay mbir di atum jéggalante di ja atum jé di atum ter kenn ku nekk wormaan sa moroom tam ne yàlla nañu defal yàlla suñu borom dafa at mi mu nekk at moo xam ne dañ ciy waaroo comme at mi jeex nañu duggaat ci beneen et ci beneen at kon war nañ cee waaroo ci xam ne àdduna lay ay minit la yu néew ak waxtu yu néew te lo yooyu ngir at at yu minit yu néew yooyu ak waxtu yu néew yooyu xam nañ ne moom ci la àdduna taxaw te àdduna moom muy ñu kat lu mën a xew dafi day day jeex te jeex itam googee jeex jeex itam googee jeex jeexam googee kenn ku ci man dara ba man ko feet saxalaat wala ban nga ci wala mën a saxal dara ci sa bopp loo xam ne yàlla jeexal na ko ci yow kenn mënu ko te yàlla moo nu leeral ne na ngeen xam ne ëllëg di mi ngi ñëw te ñëw googee amul benn sikk amul lenn lu cee nattable day ñëw nañ xam ne na kon jaam bi walla doom doomu aadama ji lim la ko war mooy waxtu rek nay fàttaliku ne àdduna sii day dafee romb rek kon nag lu mu mën a gis ci àdduna bu ko yóbbu ba mu def loo xam ne waru koo def wala mu doxee nu mu warut a doxee ndax xam na ne fooy romb ak lu mu neex neex ndeg na nga fay romb rek na nga na nga war ngaa war ngaa xalaatal sa bopp ci ne comme fii dama fi romb war naa am noo fi robbe war naa am noo fi jaare nga bàyyi xel loolee te xam ne nag ndegam ab romb ab rombukaay la te rombukaay boobee boo ci boo koy jeexal suñ borom waxula ne ñaang nangami fan nga fi am waxula ne nangami weer nga fi am waxula ne nangami at nga fi am waaye dala wax ne rek mën naa jékki-jékki rek jeex te jeex googee du doon gooy xam walla gu tege fenn ci loo xam kon loolu lu ma bàyyi xel la kon jaam bi li war a xam mooy xam ne kon andi nañ ko ci ci rombukaay boo xam ne fo waru ko fa loolu te yàlla moom ci boppam moom mi nga xam ne mooy boroom kàttan ak sañ-sañam bu rëy boobee ak man-manam bu réy boobu xam nañu ne bindut kenn ngir ay fo bindut kenn ngir ay caaxaan kon ñu war a bàyyi xel loolu xam ne dañoo bind ngir am lu lu bëgg ñu def ko loole mu bindu ngir bëgg ñu def ko nag mooy jaamu yàlla te bam nu ko wonee ne lii ngeen war a def itam dañoo leeral leeral goo xam ne bàyyiwu ca dara ndax wax nañu nan la ñuy def ba jaamu yàlla gàggoy ñu man koo def niñ ko war a defee nan leeral nu itam buñ bëggee def jaamu yàlla googee ana ban yóbbal la ñu yóbbuloo ngir mën a jaamu yàlla jaamu yàlla googee ñu mën koo def yëmut ci loolu itam mu andi ay exemple wala mu andi ay yonant ñoo xam ne dañuy won nan lañuy ñuy jaamoo yàlla kon mu mel ni suñu borom wàcceew naag doomu adama wàcceew naag jaam bi ci won na ko népp won na ko ne ko li tax ma andi la fi mooy nga jaamu ma won na ko itam ne ko jaamu yàlla googee nag ngir nga man koo def mooy da ngay jub da may jublu man képp di ma bàyyi xel di def li ma bëgg di bàyyi li nga li may loolu moo mooy mooy jumtuwaay bii nga xam ne mooy mën a tax nga àgg ci li bëgg ci jaamu yàlla gii nga xam ne moom laa def ci yow waaye yëbut ci loolu mu leeral nu ne jaamu yàlla googee boo ko bëggee def nag lii tax mu mën a sax mën a dëgër ci yow mooy faw da ngay doon da ngay yóbbu da ngay am yóbbul yóbbu yóbbul yóbbal boo yor yóbbal we nag mooy ragal yàlla ba yemul ci loolu itam mu ne jaamu yàlla googee nga xam ne wax naa ne la moo tax mu indi la fi leeral na ne ne boo ko lii tax itam nga man caa am la nga ci bëgg mooy da ngay da nga may jox lépp sa ci sa bopp leeral nu itam ne jaamu yàlla googu nga xam ne mu laa lay defloo te nga xam ne ci a waxtu lay jeexe te waxtu woo xamoo kañ la am na yóbbal boo xam ne boo ko de yóbbuloo lu mu gàtt gàtt lu sa lu sa lu sa sax ci àdduna gàtt-gàtt ak lu ñàkk-ñàkk solo da nga da nga ca jariñ loola nag yóbbul ba mooy nga yóbbuloo ragal yàlla won nañu nag ne yàlla googu itam doonut loo xam ne da nga koy defee nam la neexee wala na nga ko xalaatee waaye ni ma ko bëggee noonu lay noonu la noonu nga koy defee nga mel ne da nga laaj na kon nag nan laa koy defee ni nga ko bëggee mu ne nag andi naa ay yonent yoo xam ne ñoo leen di won nan ngeen may jaamoo ak fan ngeen na ngeen koy defee loolu lépp kon mu mel ne suñu borom kon wàccoon ak doomu aadama kon lii des mooy jaamu jaamu yàlla ja jaam bi nay bàyyi xel suñ duram waxtu nekk ci lépp loo xam ne moom mi ngi koy def moo xam lu ndaw la moo xam lu lu tuuti la te jox boppam yàlla te woolu ko te wóolu yàlla ci jox gim ko jox te jibbal ko léppam te xam ne yàlla moomee nga xam ne moo ko fi andi ngir jaamuloo ko yàlla ngir jaamuloo ko ne ngir sant ko mu jaamu ko moom day amul dara loo xam ne ci dang dana ko def danga ko def jaw jaam bi te jàpp ne loolee dana rëcc suñ borom suñ borom dara rëcc ko te itam xam war ngaa am xel mu dëgër ak pas-pas bu dëgër ci xam ne sa jëf joojee na nga ko jëfe woon da nga ko fekk kan ci ëllëg ci kanam suñ borom te suñ borom du tooñ kenn ndax soxlawut la nga koy jox doyewu ko dara bëggul lenn kenn soxlawut lenn kenn koo xam ne nag soxlawut lenn kenn bëggul lenn kenn kon du tooñ kenn kon li ñaan suñ borom yal nañu yàlla suñu borom borom jéggal te jéggal te suturaal suturaal suñu ayib te ñeewante te gënnoo ñeewante te rawatina nag ci bis bu rëy boobee nga xam ne nag fa lañ jëm te faaw danañ fa àgg kon yal nañu suñu borom jéggal yal nañu suñu borom yërëm yal nañu suñu borom boole ci ñi nga xam ne ñoom la féetewoo te loolee man na ko ndax ak baaxam kon yal na yàlla gën a jubal te boole nu ci ñim téyel boppam te boole ñu ci ñi nga xam ne lépp loo xam ne mooy aw ay wala musiba bu war a ñëw ci ñoom moom dana leen ko fegal ndax am na sañ-sañ bi am na man-man bi ndax kenn du ko laaj lu tax nga def dara nga lu tax nga def lii kenn du ko wax itam lu tax noo defee nii kon kookoo sañ na lépp mën na lépp yàlla nañ ko defal loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal rabbana axfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Uh...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 إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب وترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر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 fa amma alyatiima fala taqhar wa amma alsaila fala tanhar wa amma bi nicmati rabbika fa haddis allahu akbar allahu akbar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 assalaamu aleykum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 اللهم ارحمنا بترك المعاصي كلها ما أبقيتنا أبدا وأن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وغفرانا وعلى الخيرات كلها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين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 subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin